question wu xaalis boobu dafay firndeel injustice bi nga xam ni maanaam homme politique boobu ay militants am déjà instauré nañ ko ci Sénégal ñoom waaw ñooñu ànd ak moom ñoom de am nañu droit di dajale ay centaines de millions di ko ko jox gis nañ fi ay cent vingt cinq millions dëgg lam yàggul gis nañ ci kenn ku bokk ci ñoom ñu jëndal ko fi oto bu bakkane sax ba yéen ñëpp oto boobu buggoon ngeen ñu cotiser leen ko ñu jox ko oto kenn ŋaangul kenn waxul mais pour une fois kenn ku bokkul ci ñoom ñu gis ma ma wàcc Sénégal ñu ne dañoo cotiser 6 millions jox ma ko 6 millions yooyu man ba tey teguma ci sama bët amul ay seeni dañoo def seeni mënin rek parce que ñëpp xam nañu ñoom li ñu mën ak nan lañuy ñuy fonctionner donc gis nañu nit ku jël ay audio enregistré ko boppam séddale ko def comme ni sama panel la nekk ñu fay waxtaanee 6 millions te waxtaan boobu musuta am beneen bi mooy moyen yi courage di doxee bañ nañ ko ba laajuñu cotisation parce que dañoo bañ principe bu équité toujours la ñuy préserver ak dignité humaine bëgguñu wax diw joxe ku te ku ci nekk na joxe par exemple 1000 francs wala 5000 francs dañoo ne lu waay mën te nga attan ko te nga mu jagal la ko xeex bi jaral la ko parce que xeex bi du xeexu Françoise du xeexu Kodas kese xeexu Sénégal la Sénégal dafa dafa toll ci jamono yoo xam ne chaque citoyen dafa war a taxaw défendre la République défendre les femmes sénégalaises te seetlu ngeen recrudescence bi am depuis mois de mars ci crimes yi ñuy def contre les femmes donc Kodas ñu sentir que ni dañoo war a taxaw actuellement taxaw bu am bu am ñu gën a jëmmal Kodas sur le terrain fii Sénégal man ma jël presque à 50 pour cent charge yi am ni frais yi pour cent man maa ko assuré sinon sama xarit ak samay euh, suñuy militant yu nekk bitim réew la ñu am de jegewul sax 6 millions waaye nag on s'organise très bien euh, yàlla def na réseaux sociaux yi permettre na ma ma am euh, ay connexion yu bëri ay am di jàmm ak ay soppe yoo xam ne fu ñu dem ñu faciliter ñu donc suñu li ñu soxla ñu jàppale ñu ci bu baax a baax a baax waaye lu jege sax 4 euh, millions sax jotuñu ko amuñu ko donc biir bi maa ko jëndal sama bopp daal di ñëw def naa ñi àndoon ak man keroog gis nañu maa jël samay ressources di ci débrouiller parce que damaa jàpp ni comme ni ko euh, kenn di waxee woon au contraire balaa au lieu que ngay xool lan la sa réew mën a def pour yow da ngay xool yow lan nga mën a defal sa réew ba pare te ñun loolu moo ñu poussé en avant looloo tax taxawuñu di xaar autorité yi doxal li ñu war a doxal ci réseaux sociaux yi parce que demoon nañu ba xoxatal sénégalais yi ñemeetuñu woon wax ba ma defee appel codage juddu ci la sénégalais yi tekkeeku yeewee ko xam ni am nañu droit léegi war nañu mën a wax parce que jox naa leen courage may naa leen fit ba tax ba tey ñu nekk plus de 500 personnes euh, dans le virtuel ëpp na ko ak des la masse silencieuse ñëw di ñu jàppale ba nga xam ne ci réseau sociaux yi léegi fu ñu attaqué l' essentiel est à dire la république wala aji Raby Sarr wala ay jigéen ci yenn anam yu ñaaw yi ñun ñu ñëw xeexal leen te loolu defe naa ni appareil politique yi ñoo ko am aji Raby bu doon moom kese du mun a défendre boppam te gis ngeen différence bi am ci photo yi ngeen gisoon moom ba muy def ko euh, conférence de presse am gisoon ngeen ko gis ngeen photo yi ngeen gis temps yi dans la presse mm-hmm. donc gis ngeen changement bi pour vous dire que nit mooy garabu nit ñun lépp lu ñuy dox c'est pour le bien-être des Sénégalais et le mieux-être de la population loolu rek tax ñuy dox wax nga ko sànq nee nga kaaraange bi ñu ngi waaw sama kaaraange nag euh, wax dëgg yàlla du état du Sénégal moo koy moo ko moo ma moo ma koy kii moo ma koy gérer donc CODAS man ak sama ñi ma àndal ñoo koy gérer sécurité bi CODAS loolu bokk na ci moyens yi ñu doon euh, jéem a dajale pour que ma mën a ñëw def mission bi au nom du CODAS pour la nation sénégalaise pour la république pour Adji Raby te ñu mu mun a nekk ci anam yi gën a Euh, safe maanaam mu bañ a am benn si benn luy yàqu wala kenn kuy gaañu parce que contexte bi dafa dem ba Sénégalais sax ci boppam euh, dañuy ragal a wax seen opinion ndax bañ ñu euh, menacer leen de mort bañ ñu attaquer leen wala bañ ñu ñëw taal seen kër man menacé nañ ma ba tàyyi menacé nañ ma ba tàyyi donc seen normal que bu may ñëw waa CODAS mettre sécurité bi au maximum mu nekk une des priorités. li nga xam ne moom la ñu njëkk a avant que may déplacé wu mais du état moo ñu ko jox ñun c'est avec nos propres moyens